wax naa la li ma xam ndax li leer na ma si saaliw du nu bokkaale ay mbiram lu dul diine ki lislaam la nu wane ku ca si saaliw du nu bokkaale ay mbiram asuma ne la ci sa gi kan moo waral si saaliw sunu wér gi yaa ko waral asuma ne la gi kan mooy kitaab si sunu mucc gi yaa